bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa radiyallahu an xaadimihi alqaa'il yaa xayra dayfin ataa bilbishri walmadadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi bokk yi fu ngeen mën di nekk ci biir Sénégal ak bitim réew ñoo ngi leen di nuyu di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaye di leen ndokkeel nag ci weer wi nga xam ni tey lañ ci am benn fan di weeru koor wi nga xam ni moom lañ doon séntu boobu ba tey di ko xaar ñu fas ko yéene ànd ak yéen niñ leen ko waxee woon bokk yi tey nag liñ fas yéene indi mooy lenn ci histoire koor koor bokk yi mi ngi wàcc ma dinatul madinatul munawara aaye ji nga xam ne moo farataal weeru koor kon wàccul màkka fekk na yonent bi gàddaaye màkka ba dem a munawara loo ciy dégge kon julli moo njëkk a wàcc weeru koor bokk yi mu ngi wàcc bisu altine laaye ji waaye wàcc tam ci weeru Shahbaan muy weer wi ñu génn waaye tam ci eh, li nga xam ni mooy ñaareelu fan ba ci weeru baraxlu ci la laaye ji wàcc yàlla nag daan yee yéen jullit ñi bis ni ki tey farataaleef na koor ci seen kaw ni niñ ko farataale woon ci xeet wi leen jiitu woon kon aji gëm ji philosophie bi ci aju nag mooy day ber naa feq yi ak ñi nga xam ne nii ñooy ñi gëm si te seen ngëm dëggu ndax màkkatal mukarram ba fa yonent bi nekk ñaari camp rek a fa nekk muy alkaafir wal mu'min muy ki gëm ak ki gëmut waaye bi mu ñëwee a war dafa am troisième kan bu leen troisième te mooy naafiq bi ni lëjj ci biir jullit ñi te fekk gëmul su ko defee nag jaamu yàlla koor dafay def division dafay diviser diggante naafiq bi ak woy gëm bi ndax naafiq mënta woor julli gi ñu doon defandoog jullit ñi jullit ñi mën nañoo seede ni kii de ab jullit la ndax day julli waaye koor kenn rek a ci doy seede muy borom bi subhanahu wa taala c'est-à-dire am naa fiq mënta woor ndax bu beroo lekk wala mu doon jàpp-jàpp lu naan kenn du ko xam ku dul borom bi subhanahu wa taala bokk ñu ñemale fii suñu statut tey waaye bala ñuy daaneel ñu leeral leen nag variation de temps bi am muy heure dog yi wuute ci àdduna bi nañu bàyyi xel ni ko waral mooy jant bi ci la ñuy tënk suñu dog ak suñu xëdd waaye tënkuñu ko ci heure montre bi heure boobu nattukaay la waaye jant bi la loo ci dégge mooy yow mi nekk ci penku Sénégal muy dëkk yi nga xam ñoo gën a sori ci Sénégal muy lu mel ni Kidra wàcc si jëm si ba ci Touba ñooñu ñooy njëkk a dog bu dee Kidra normalement war nañoo dog 10 minutes après Dakar door a dog dog jot na ci dakaar ak li ko wër te fekk yaa nga Kidira wala yaa nga Matam na nga bàyyi xel ni kon yaa ngi def erreur yow war ngaa dog avant loolu nga koy dégg ndax télévision bi ngay déglu lu ci bari ci télévision yooyu ñoo ngi centré wu fi nga xam ni mooy ndakaaru kon nañ ko bàyyi xel su ko defee heure bi ñuy jàpp muy heure xëdd bi mi ngi yem 5 vingt 28 ci Touba Mbacké su ko defee luñ gën a wàcc rek dañuy gën a euh, wàññ yokk su ko defee 5 vingt 28 ci la ñuy arrêté xëdd kon li gën a dal xel mooy teelal a la jóg 5 pire yow mi féete Touba Dakar la nga yokk ci 6 minutes maanaam 5 heures 24 euh, 34 bu dee 34 ci premier jour bi ñu nekk ñu bàyyi ko xel kon tey jii ñoo ngi xëdd 5 vingt 28 ci la ñu arrêté xëdd bi lekk bi waaye ñu ngi dog 19 heures 22 ci Touba Mbacké su ko defee fu mel ni Dakar 19 heures 28 lay doon su ko defee ñu bàyyi ko xel. kon ñu jeexale ko naafile yi nga xam ne nii moom la ñuy dundale weeru koor bi teg ko rek ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunnaal wax ni man qaama ramadana imanan waxtisaaba gufira lahu ma taqaddam min zanbi képp ku taxawee taxawee weeru koor wi ci ay nawaafil jéggal nañ koy bàkkaaram su ko defee loolu moo tax dañuy dem ci quratul ayni sëñ Sohaybu indi ñu fa ay nawaafil yuñ mën a dundale weeru koor bi bis bi njëkk mi ngi joxe fukki rakka fukki rakka la rakka bu ci nekk ginnaaw fatiha da ngay jàng inna anzalnaahu fi laylatil qadr ñaari yoon qul qul yaa ayyuhal kaafiruun ñaari yoon qul huwa allahu ahad ñaari yoon lii mooy nawaafil yi kon dañuy doyloo tudd nawaafil yi walif ñu leen di tuddal sax yool ba ak daraja ya ca nekk doy na sëkk def ko rek ngir jaamu yàlla waaye def ko ngir borom bi jéggal la say bàkkaar taf la ci boppam ñu jox leen di daje ci suñu deuxième jour ci statut du ramadan wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.